ah bismillah ah ah bés de marxaqatu lëf lu mag réel na xabaaru bés pénc moom maa dalee ko fooy jaar ba xam marxaqatu fooraayu bés pénc kasabat weddi woon na samuudu samuudun wa aadun ak xaab ku ci ne weddi woon na bil xaari ak ci bés pénc jigu leen ma duma leen kan laa jëkk duma samuudu fa amal samuudu moom fa uhlikoo maa ngi alag bi taaqiyati jasakalaahu naa xayra yal na la yàlla maa ngi alage bi ci xaacu ñépp de wa ama xaadun xaadun fa uhlikoo ñu leen alake bi rihin sarsarit ci ngelaw lu ànd baat xaatiyatin guddi ay doole sa xaraxaa tàggat naa ko alim ci seen kaw képp paasewul seen seen terrain sab alayaalin juróom-ñaari bëccëg wa sanaaniyati sab'a layaalin juróom-ñaari guddi wa sanaaniyata ayyaamin ak juróom-ñetti bëccëg ku soo man ci toftale suul nit ñëpp suul taax fa taraa da gis xaw ma nit ña fiyaa ca ngelaw la sarxaa ñuy woy nërmeelu kaannahum koo ci seen day newee ahjaasu naxlin banqaasi tàndarma bu ñu doog ak jaasi jur ñaw a ñaw xaawiyatan mu di koy moroota ci kaw jëm maa ngi lay laaj fa altaralohu min baaxiyati gis nga kenn ku bokkoon ci ñooñu ku des mën a mucc làqu ba mucc baadaw ba mucc amu ca <coughs> ñépp dee wajaa daal di dikk firawna firxawnu jiitu woon Firawna ci kéefër wal mutafikaatu ak waa kër lootin ñépp indi nañu bi xaafiati ci bàkkaar fa asaw mooy rasula rabbim seen ndawi borom fa aqasawum te bugal leen axsatan mbugal raabiyatan guddi aji dolleeku tar ginnaa noonu yàlla ba may rey waa koor nooxin la naa tàqaa ba nga xamee ne jéggi maa un ndox ma xamal naa kum laa leen yépp fi jaariyatin ci gaal li naj alaha ngir ma def leen yéen taskiratan ngeen di jiw des ci àddina doon waar itam ba yaa ak ngir na mën wattu bu ñuy nettaliwu xibaar bi us nun war a mi nopp waaye yettun yoo ne dénk nañ leen ak mën wattu fa izaa nufixa bés bu ñuy ëfloo fi suuri ci bufta ba nafxatun waahidatun ëf genn rek suufle du doon ñaar du doon ñett wa ummilatil ard ñu ne cas suuf ba ca kaw ñu wëlbati ko juutal ko ni sàkku bu ñu juutal li woon ci biir na yuréet wal jibaalu doj yi itam noonu fa du kattaa ñu boole suuf ak suuf ak asamaan dëbb dàkkatan génn ak dëpp waa idatan guddi génn ñu wow koŋ ñu mokk rumbux ni sunguf ma weefaara leen fa yow may bés bi lii amee waaxe ati lay taxaw waaxe atu bés bi waaw kon sàkkati dina xotteeku samaaw asamaan fa iya moom asamaan yow may keroog waa iyatun day niroo pis bu nëb bu ñu ëmbi xeer dootul am résistance si mën a taxaw li ci biir di tuuru ni xeer woo xam euh, ni morso bu nëb moo ëmb xeer yëkkati ko ba ca kaw wal malaku malaaka yëpp ala arjaiha ñun ca ko tey asamaan wa yaamilu dana enu arsa rabbika aras fawqahum tiim malaika yowmay sin keroog samaan yitu aras su mu ne ñeent ka enu waaye yëngu-yëngu bés penc dina tax ñu laaj renfort ñeneen ñeent dooleeku ci muy samaan yiti yowmay tuura doona nañ leen gaare yéen ñépp ci kanam yàlla laa tax faa du mën a làqu min kum ci yéen xaafiyatun aji mën a làqu ñépp ay teew fa ma man utee kitaabu bi yemin yàlla ci yàlla boole fa yàqul dina ëhum ma jotali ma gaaw aqara ma nettalil sama bopp kitaab yi sama téere pourquoi ini man se sanentu xamoon naa ne ini naka man mu laaxin dinaa daje isaab bi sama sama sama rajo foofu waa waajooju ka eesa tembaadi yetin fi jannatin aaliyatin xutoo fa meññet na daan yetun jegéñ di suuf dinaa leen ko loo lekk leen wasara boo te ngeen naan ani an te ngeen di neexlu bi ma astaftum fi layaamil xalil waaw maa man daal ka nga xam ne autee joxe na ko kitaab boo téeréem bi simaal yi ci càmmoñ ñoom fa yokku dina wax ne yaa lay tani ellente woon lu uqta du def bu ma jox kitaab yi sama téere wala ma diri te xamuma naay tabiye yaa lay taxa ak a neexoon déegi kaanati mu nekk xaadi yettan di génn déega woon ci àddina ma ax ne jëriñul ani ci man maaliya sama aleel xalaka sànko na ale ci man sultaaniya sama lay xaawut xaaw sakkit yaa ngoog alfaxir yooyu yëpp kenn xamul alfaxiri sakkita lañ ko tuddee ku soowu jàppaleen waa jooju fu xuloowu ngeen ceene ko ba mu dëgër su ma suloowu ngeen dugal ko fi jëyim yi ci jëyim bu ngeen koy dugal nag ba mu tàbbi na ngeen koy yeew ci biir jëyim parce que balaa ngaa duggale lay ceene moo boo ceene ceene bi nga lay pour nga sànni la ci biir jaanama du bokk nag ceene gi ñu lay yeewee ci biir jaanama ci biir jaanama moom ceen gi dina nekk sël fii silsilatin ci ceen ngoo xam ne far an soixante-dix mètres lay doon fas lu ko ngeen bàyyi ko fi muy wët ne goroogu ñu ñëw ci ndigg innahu kaana laa yumnu billahi gëmul woon yàlla al azim wala yaxuddu musula xiir kenn ala taabil miskin ci jox miskin ñam fa laysa loo dee di ñeel al yawma tey ahuna fii ci safara ami mun xarit bu ko mën a wala taamun amu fi ñam illa min qislinin ndaree dëtti waa safara la yàquluhu du lekk dëtt googu ilal qaati'una ndaree yëfër yi falaa uqsimu jinnaati ba lima gi bi ma tubsiruna li ngeen mën a gis ci wa ma laa tubsiruna ak mbindeef yi ngeen mënuloo teg seen bët innahu alquran mi la xawlu rasulin waxe ndaw la karimin <coughs> ndaw lu di aji tedd ca yàlla wa maa woo deel al alxuraan bi xawli saa irin di waxi waykat xalilan néew na maa tuuminuuna li ngeen di gëm wala bi xawli kaayinin di waxi kaayin xalilan néew na maa tasakkaruuna li ngeen di waar tansilu min rabbil alamina ak wàcce la bu jógee ci borom bi ndi fi walaw taqawala donte na bi sosus na sosaloon na alinaa ci man baatal aqaabi li benn baat rek su ma ko sosaloon la aqas naa kon dinaa jàpp bir yemee ne ci kattan ñu ne ndey jorom su ma lakk pax ma dagg wuti nu muuma xolam ma ko defee loolu fa maa min kum amul ci yéen min ci kenn xaaji siina ku mën a tere an hu ci bu may defanteeg nabi loolu su ma nabi du yoon benn baat rek dinaa dogg bu gi te ci ndey jorom sànni ko biir safara te kenn du ko mën a àtte wa innahu alquran la taskiyatun ak warale lil muttaqin wa inna nun yàlla na naalamu xam nañ ne anna minkum am na ci yéen kaddibiina ñu weddi alquran wa inna wa alquran la asaratun alal kafirina karte lay jural yéefar yi di jural julit ñu ko ñaay wa inna wa alquran la xaqul yaqin xaqul yaqin la fa sabbi na nga sabal bismi rabbika si tur borom al azim ndaxam moo saala laaj na saailun aji laaj ngir diingat bi asaabin waqiyin ci ndax dëggal la duggug mbin mbugal mi laysa lahu axakañ dina tàbbi kañ mbugal la dina tàbbi lil kéeféer lay soloo de di ñeel mbugal ma daa fiyoon aji mi yàlla ci yàlla silvahaari ji yàlla ma nga xam ne moo xotti mbedd yi ñeel malaaka yi taaru ji dana yéeg malaayikatu malaaka yi waru ak jibril yi jëm ci moom fi yoomin ci bés boo xam ne kaana da nekk miqdaarahu yàggaay bés ba xam si na alfa sanatin di tolloog juróom fukki at juróom fukki junne at ci seen addina bi fasbir mu ñeel yow sabran jabilan booba diggalu guñ ko ko innahum nag ñoom sa yëfër yi yarunahu jortoo nañu alaxira baidan ne lu sori la wa naraahu xam na noon yàlla ne xariban lu jegeñ la yow ma bés bi nga xam ne takkoon day nekk samaaw asamaan kël muuli ni ki bettex bu ñu ruyal wa takkunu nekk jibaaru ba kël ihni ni ki ngëndal lu ñu dëbb ba mu mokk mooy kawar gu muy googu nekk ci xaab walaay salu defu laaj keroog ami mun xarit ami man ab xaritam de yu basiruunahum ñu leen xamal ma xarit yeg yu waddu dana jëriñ dana ngéeju almujrim mu yéefar yow may seen keroog te di doon nangu lo lañ ko mu jot min asaabi yow may seen ci dumay bés booba ba banihi ci doomam mu joxe doomam muj wa saayidatihi boole ci jabaram te mucc wa aqihi boole ci fereeram te mucc wa fasilatihi ak géñoom gépp te mucc la téye nga xam ne tuuti boole ci sax wan fi ali jamian ak a neexoon yàlla nangu ma jox ko waa addina yëpp te mucc su ma yën ji su ma joxoon àddina ñéppit du tax mu mucc innaha safara lafa lafa la safara su tàng la nafa atan dina rocc li sawa ci deri bopp tadao dana xëcc bana dabara képp ku joxoon gannaaw l'islam watawalla te mu du mooy woon alquran wa jamaa te muy dajale aleel fa awxa mu di ko garde bañ koo saraxe ina linsaana naka nit ku li xa bindif na ko aluhun ci kër isaa masa undéem laal na ko saru ay jasa un mu tiit dafee na sul ñàkk wa isaa masa undéem laaj na ko xayrun ma manoo am mu la lu commencé di furtaak di ko tere ak yàlla i leel musalina nda réew ñi te ñooy jullit ñi la si na ña nga xam ne hum ñoom daay moon a way sax la ñu ala salaatin seen julli wala si na jaay nga xam ne hum ñoom xàqul ñoom eh, saxal nañu wàll maalumun bu di bu ñu xam fi am waalim ci seen aleel li saayi li ñeen ñiy laaj wala maaroom ak ñi amul wala si na ñi nga xam ne yu sadi xona dëggal nañu bi yawmi diini ci bés penc wala si na mooy gars yi nga xam ne um ñoom musfiqoona way ragal lañu min asaabi rabbim ci mbugalam yàlla in asaabi rabbim mbugalam yàlla xayru mamunin du mu lu ñu wóolu wàccam wala si na ñooñu nga xam ne moom ñoo xaafisoona waaye wëtta la ñu li furóojin seen pays yi ilaa la suwaajim lu seen jabar aw ba malakat aymaanum wala la seen lay jor yi moom fay noom naka ñoom xayru maluumiina duñu kenn koo xam duñu ñu ñu yedd ci loolu fa ma nem tax xaaku wut nag wala saalika ginnaaw ñooñu fa ulaayikumul xaaduuna wala si na ñooy gaa yi nga xam ne hum ñoom li amaanaatihim ci seen dëgalanteeg nit ñi wëdiihim ak seen wëla rek yàlla raaxoona way sàmm nañ ko wala si na ñooy nga xam ne xaaimuuna way taxaw la way taxawal la ñu bi saadatin ci seen seede ngir yàlla wala si ne ñooy gars yi nga xam ne yoo xaafisoo la nañu wattu ala salawaatim seen mu kër mën a ñu ñu tëral la ñu fil jannati ci àjjana fa mali la si a kafaru lu xew yéefal yaa ngi la wër xibalaka côté bu ne ñu ngi fi toog muuti iina di way saxal seen xool jëme ci yow anil yemini ci ndeyjoor wa anis sibaani isiina mbir mu ngi di kuréeli kuréel Ah, ayat ma o dafa xemam kullim rim képp kenn minum ci ñoom ne an yut xola dinañ ko tàbbal jannata nay mi ajjana kala aa ah, ah. inaa xalax nahum bind nañ leen bi maa yaalamoona ci li ñu xam muy ndoxam meniyu fa laq su ma giñ naa bi rabil masaarixi ci borom masaarixi wal maxaaribi tey borom maxaaribi inna nun la xaadiroona mën nañu ala nu baddila nu remplacer xayran lu gën minum ci ñoom wa maa nanu déet nun bi masbuqiina di ñu ñu way raw ngeen din way raw basarum bàyyi leen yaxuudu ñu continuer ci caaxaan wa yar a boo te fo addina ataa yu laaqu ba ñu dajeeg yow seen bés la si bés bi nga xam ne yow adduna bés la bu ñu leen dencal yow ma <coughs> bés la boo xam ne yu ko yoon yoon a gën leen ñu la jaar si bàmmeel yi si waa an ñi di way gaaw jëm ceeb li yéeba ka annahum daanaka yoo fi doona way daw la ñu ilu musibin jëm ci xiram la aw saaroon seen gis yi tar a qowoon dana si la tën toroxte saalika al yowm la si kaano yoo aduuna mooy bés biñ leen doon dëkkoo ko dencal bu yàgg ba tey <clears throat> maa yónni ila xawmihi li tax anaan sir naka waaral xawmaka min qable an yaatihum balaa leen dikkal azabul alim dem na it wax na it nee na yaa xawmi inni lakum nasirun mubin ana bu doo na ngeen jaamu laa yàlla wa taqoo te ngeen ragal ko waati te ngeen topp ma kon yëpp def na baal lakum ñu leen misdakum seen bàkkaar uy wëqarkum def na leen mu ñëw ilaa ajrin musamman dinaa jële laay digab yàlla isaa jaa bu dikkee laay waqaru dootul xaar ëllëg law kuntum taalamoon a rabbi nii daxawtu oonaa xaw mi sama nit ñi day leen guddi wanaan ak bëccëg fa lam yasitum dolliwu leen duwaa yi sama oo gi ma leen oo jëm ci lislaam ilaa firaara ndaree gënee daw jëm ci kéefër way nii man ku la maa daawtu bu ma leen ooyee li tax fir ngir ñu baal loom ñe leen jaaloo ñu dugal asaabim seen cati baaraam yi fi asaanim ci seen paxi nopp yi wastax taalaw siyaabum seen alaani wa asaroo ñu nuur nem na ci kéefër wastakbaroo ñu istikbaaran sa réelu su may nii topp naka man daawtum oonaa jaaran ci yëkkati sama baat su ma nii topp naka man ahlantu uy eh, leeralal naa lahum ña leen wa asrartuma déy lahum ña leen israaran ak déy fa xultumay baal leen rabbukum seen borom inoo naka yàlla kaane nekk na yursilu di yebal a asamaan <coughs> mi daraan ab taw aleykum yumdidkum moo leen di may bi am waa leen ci al wa banin ak doom way cal defal na làkkum ñe ay tool way cal defal ay kër ay sew ay robinet maa du ngeen yaakaar lilaay yàlla waxaaran ànd ak ànd ak leen yàlla atwaaran ci jamono jamonoy ndox jamonoy maniyu jamonoy ndox euh, deret <clears throat> alam taraw gis ñu kay fa xalaqa ni ki bina laaw yàlla saba samaawaati juróom-ñaari asamaan ci baaxtan muy déedéet wa jaala mu dogal xamara weer wi fii ni ci seen biir nooran muy leer wa jaala mu def sam sa weer wi jant sam sa jant bi sa ah, jan mu di kandi walaaw yàlla an batakum moo leen a minal ardi ci suuf nabaatan gàncax su ma yusidukum topp de leen delloo fi ak ci suuf ñu rob leen wa yuxrijukum deen leen génne ci suuf ixraajan ak génnañ ngeen dekk walaaw yàlla jaala defal na lakum yàlla leen la suuf bi saatan mu day lal li tasluku ngir ngeen mën a waaxu min haa ci suuf su booleel ay yoon fu jaajan yu nawa yu yaatu xaala noohum noohu ne rabbi innahum azaw ne mooy nañ ma wa tabaxoo topp nañu maa lam yusidhu loo xam ne na jëriñ maa du du dolli maa du wala du ilaa xasaaran wa makkaroo taxe nañu makkaran taxe ku baaran nu ngiy dinkunte naa laa tasuun na bu nooyin tax ngeen bàyyi aliatikum seen yàlla yi wala tasuun na bu waddan yàlla di wax waddan wala suwaan bu leen bàyyi xërëm bu ñuy wax suwaan wala yaxuuda bu leen bàyyi xërëm bu ñuy wax yaxuuda wa yaxooqa it xërëm la bu leen ko bàyyi nasara nit xërëm la bu ko bàyyi waxadalalu xëram yooyu réeral nañu kasiran lu bari wala te si di dolliwul saalimiina yéefar yi ca topp xëram yooyu ilaa dara la ndareeg réer mi maa xatiyaahum seen ñaawteef yu bari yu sax yooyoo tax uxriqoo ñu laba leen ca ma wax ñu dekkit ñu dee fa duxulu ñu dugalee naaran safara fa lu ñu ji doo amuñu ansaaran aji dimbale min doon lay ci duma yàlla yi waxaala wax noonu noonu ne rabbi yow borom bi la tadar bul bàyyi alal la ci kii ci di yaaral askar mel kafiri ne ci yëfar yi innaka naka yow yàlla intatarhum boo leen bàyyi loo yedi loo dañuy réer a ibadaka jaam yi te wala yàlla do dootuñu jur ila fajira da rek yëfar kafaara rabbi xfir lii yàlla nga ma jéggal wali walidayya ak samay way jur wali man daxala bayti ak ku dugg ci jàkk ji walil muminina wal muminaati wala tazki yàlla bu dolli salimina yéefar yi ila sabaara ndare ak alkande sadaqa allahu alazim biram sàmb an seen waa kër bàyyi gu ñu dara mu deel jam ci banne xew astabaha déglu na ma te yëguma ko nafarun lu bari minal jinni ci jinne yi ci guddi fa xaaloo ba ñu delloo ñu naan sami naa dégg nañu quraan alquran ajaban ju yéeme yaa di dina tetti nit ila rusdi jëm ci liimaan bañ ko déggee fa amana nu gëm bi ci moom nu dee wala nu sëlbët nu bokkaale bi rabbi ak yàlla ahadan kenn bari na xoolee xew tey dëgg mooy taala kowe na jëddu rabbi naa sell ak yàlla nga nay taxi sa fekku amut saa ibatan jabar wala wala da way nawoo kaana nekkoon na yaqulu di wax sabi unaa dof ci ñun jinne yi ñoo daan wax satatan ay fen alalaay ci yàlla daan yàlla am na doon way naa nun sànn naa jotu woon nan ne alan taqula ñemeñu la wax lin su nit wal jinne ak jinne kasiban ay fen alalaay ci lu gëm ko way nowoo kaana nekkoon rijaalun ay nit mina lin si ci nit ay góor yi nit yahu duuna di muslu bi rijaalin ci góor minal jinni ci jinne fasaadahum muslu googu dolli leen raxaaqan ak daw <clears throat> nit ñi def ci am ñu daan muslu ci jinne yi bu ñuy wayaase ba guddi bu ñu fanaanalee naan a bika min rabbi min sarri rabbi haadal waadi yàlla nu musal ci ay ki moom xur wi ci jinne yi jinne yi nag ni nit ni mu foore suy muslu ci ñun ñun mus ñun kon ay supérieur la ñu fasaadahum rahaqa wa innahum nun li tax nu dollee bew moo di amoon na ay góor min al-insi ci nit yahuduuna di muslu bi rijalin ciy góor minal jinni